ndimbali macha allah ndimbal yi bëri na am na solo daal parce que nit moom boo ko woowee jox ko teraanga ki la ko jox amoo fayam te tamit dañuy ñaan ñi ko joxe at bu jot rek yàlla yokk seen xéewal ñu dem ba am lu ëpp lii daal te yéene bi ñu am si gox yi yàlla yeggale ko ak jàmm ak salaam daal macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm si barke weeru koor wi tey ñaan yàlla may ñu fekkee ko déwén nag jàmm ak salaam kenn bañ a manqué kenn bañ a wóotu total ah ñu koy sant rek di ko gërëm macha allah kontaan nañ ci ñoom daal waaw yal na yàlla defal ñëpp jàmm rek ah man moom wax dama koo mënul bu baax <laughs> waaw. kontaan nañ torop yal na yàlla def jàmm.